man Sénégal li gaa yi raay raayal du ma ko raay raayal da ci digg bi laay jaar ku tudd mbirum Dieyna Baldé génnee ci seen petit gàlle dangay raay raayal mais waxoo li am ñu waxante dëgg Sénégal gi la ñu dëkk. te firnde bi rek bu ndaw firndeel na ko bu ndaw bi mu ñëwee di def témoin wan na ne kon seen petit gàlle da yàq xale yi ndax moom bu ndaw moo moo wax ne waa ji daf ko doon sàkk mu bañ te moom ci seen petit gàlle la bokk. kon xale yeneen yi bokk ci seen petit yëpp procureur war na leen woo enquête leen mbaa nekkuñu ci situation Dieyna Sénégal nañ bàyyi raay raayal bi nañ wax mbir yi mu leer ci bopp nit ñi dañuy wax mbirum naa balde mi ngi bokkoon seen petit gàlle fa la ko Mamadou jóob gisee fa la ko jëlalee appartement mu ne day def musique mu ko ciy jàppale li ñuy wax nii ci la xewee dëgg laam am du dëgg beneen côté jàngat bu bu metti sama xol léeg-léeg mooy bu amee nitu diine ko def dara. Mhm. journaliste yi duñ ko may naan nañ xaar ba procureur pare ci enquête bi immédiatement la émission yi di tàmbali. plateau spécial yi reportage yi xalima yu ñaw yi duñ duñ bàyyi dara mu sedd waaye bu dee ab directeur ISEC benn euh, bërëb la jiite ñu naan waaw non gannaaw mbir yaa ngi ci euh, wàll yoon nañ bàyyi ba yoon pare ci liggéeyam ay waay sàmba léegi daal imaam sëriñ daara oustaz duñ xaar yoon moom pare ci liggéeyam tudd nañ ko takk commentaire yi tàmbali na dal ci kawam dafa ñaaw nitu diine kuy def lu mel nii waaye léegi nitu directeur kuy def lu mel nii moom danañ ne noonu bàyyi gannaaw mbir yaa ngi ci wàllu yoon <laughs> danañ ko jéem a sax sangalaale ginnaawam xale bi c'est-à-dire <laughs> dafa ruus ruuslu ci Sénégal <laughs> mais lu ci mën ci am procureur de la république war na convoquer mbooleem xale yu bokkoon seen petit gàlle ñu enquête leen mbaa nekkuñu ci situation Dieyna bi ndax dafa am lu ñëw affaire Dieyna moo ñëw ñu koy coow léegi ñu kan la bu ndaw bu ndaw fu mu bokkoon seen petit gàll bu ndaw lan la wax ci enquête bi selon li ñu journaliste yi jox tey mooy man doon na ma bëgg a sàkk moom waa ji ma bañ ci la abordé Dieyna mu nangu léegi waaw moom mi ñu doon bëgg a sàkk mu bañ fan la bokkoon seen petit gàll Dieyna fan la bokkoon seen petit gàll moo tax maa ko waxoon maa koy répété waat bu ñu arrêté wul seen petit gàll lii du fi arrêté xale yu ndaw yoo xam ne ñu ngi toll ci war a jàng. toll ñu ci ñu leen di exposé ci àdduna bi ñu naan dañuy def musique di wëy pour lan émitel diw royal diw sa xel mi nga war cee def mokkali leçon ak mokkal waykat li muy wëy mais loolu dafa baax ci ay xale mais dañ naan non ñooñu kenn du leen tudd ndax nangam ak nangam Sénégal yooyu fekk ñu ngi koy raay raayal dëkk bi lii du fi jóg kon responsabilité parent yi danañ ci ñëw responsabilité waa ji danañ ci ñëw mais ki indi xale bi ci écran yi ba àdduna bi gis ko ba waa ji gis ko responsabilité bi tamit ñu tudd ko. Mhm. ku ko daw tamit wax dëgg fa yàlla yaa ngi am koy làq ak keneen koy dóor euh, ci miir bi. ki indi xale yi seen petit gàlle responsabilité mi ngi ci ndax lu ci mënti am seen petit gàlle gone yi seen petit gàlle yi lañuy tudd mais ana grand gàlle bi nekk ci ginnaaw seen petit gàlle. grand gàlle boobu moom du génn. duñ wax ak moom duñ wax ak petit bi nga xam ne du tey ana bërki démboo Njaay maam jaare xale bu ndaw la indi seen petit mu xëy asaru di futteeku mm, dem ba bitim réew def euh, ñu baal ñu futteeku ca biir tubaab yi njiit laa yu kese mu sol ko def kilib fan la maam jaare génne fu dul seen petit gàlle mais léegi yooyu yëpp dañ koy jël nëpp nëppal ko directeur ISEC Dieyna Baldé nangam seen petit gàlle te ñu góom bi góom bi mooy seen petit gàlle ak ku ko wax ku ko amul mooy seen petit nag may Makhtar Sarr maa koy wax Ah, maa koy wax ndax bu ñuy wax dëgg tamit dañuy wax dëgg rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waxoon ci ndaw euh, ndaw sa sàccoon bokk ci giir ga mm. giir gu mag ñun ñëw naan ko waa suturaal ko ndax xam nga famille bi mu bokk yonent bi daf ne leen law anna fatimata binta muhammadin saraqat la qata'tu mm-hmm. yadaha fatima mi doomu muhammad bu sàccoon ma dog loxoom dëgg noonu lay doxee waaye ñoom diw la jarul ñu leen ci tudd journal bu ciy bind yaa ngi bind di attaqué ma sàmbaak ma dem ba bàyyi ndeyu mbill gi loolu tegul fenn bu ko defee nañ wax ci seen petit gàll mu arrêté day yàq xale yi te lii benn preuve la bu ci feeñ te yàgg naa feeñ li Oustaz Birame di Basine di junj ñu bari ci presse bi jotuñ ci te ci suuf la xewee ci seen petit gàlle la xewee mbirum Maam Jaara waxoon naa ko jamono yee ci ginnaaw xale boo xam ne nee na lu musique laaj ma def ko bu laajee futteeku lu mu laaj ma def ko ñu jëlee ko fi defaral ko ay kayitam yóbbu ko ba bitim réew muy def clip futteeku élément kan la produit kan la seen petit gàlle tey jay naa génnaat fu mu génnee seen petit gàll mais dañoo kii seen petit gàll balaa doo seen seen grand gàll yàlla ñu yàlla defal sutura ñu dem seetaani euh, transition